transition ndax Kébémer tamit bëri na ay xale bëri woon na ay sport yu ñu doon pratiquer lan moo tax la basket ndax taay bi la moo la ci poussé wala ndax y a quelqu'un qui a été déterminant ci transition wax ji sax et puis booy Sénégal bu ne football lay foowee voilà voilà ah? exactement xam nga ku ne ak lu yàlla def si moom mën mhm. euh, naa wax ni man basket tey boo ma tegaloon football ak basket ma choisir football. Mhm. parce que xëy na laa bëgg mais yàlla lii la dogal si man. Mhm. xam nga te nangu naa ko. donc man bu ma nekkee xale sama mag yi jigéen ñi ñoo doon basket. Mhm. xam nga ñoom laa doon dem di setaan affaire yi man basket yi fu jigéen laa ko mos a jàppee. xam nga mais après nag bu may dem di ànd ak ñoom di leen jàppale. à fall in love with the game xam nga. ma ma ma commencé bëgg basket. loolu moo ma dugal si si si basket quoi mais du loo xam ne lu ma mos a xalaat ni dinaa ko nekk. même bu ma am na ñu bari bu ma gisee di ma wax ay affaire basket dañ naan la kii kañ la commencé basket. Hmm. parce que su musuma ko xalaat ni dina dina même ak ni nga njoolee njo njoolee. Euh, non affaire njool bi moom dafa xëy rek xew rek xew xam nga. Hmm. sama papa dafa njool sama yaay dafa njool. mais nga njool. <laughs> waaw. tey <laughs> rek xam nga dafa nekk loo xam ne lu ma lu ma njoolal tout le temps xam nga. dama hmm. dama xëy rek benn sama. benn vacance rek ma ma njool. <laughs> waaye dem ndox garaaw na ah. non ah, mais ah. yow yow laa la demee. léegi léegi basket bi nan nga def ba parce que tamit peut-être que ñëpp amuñu chance. bi nga am am na ñeneen ñoo doon basket.